asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu mbokk yi ñu topp ci MK TV Muqaddimatul Xidma TV fii ci biir jumaay Tuubaa ji jataay yi nga xam ne ñoo ngi ko doon def tudde ko mborum yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ciy waxtaane jaar-jaar yonent bi sallallahu bii mooy jataay fukkeel bi ak ñeent ginnaaw ba nga xamee ne tàmbali woon nañ ci aw askanam moom yonent bi sallallahu taala alayhi wa sallam di waxtaan ba ci waxtaan bu mujj ba di fukkeel ba ak ñett ba nga xam ne ci lañ tëje woon doon waxtaane lu jëm ci laylatul isra wal mi'raj muy gàddaay gi nga xam ne euh, rañaan gi nga xam ne moom la yonent bi sallallahu taala alayhi rañaanoon ci ndimbalu yàlla suñu borom nettali woon nañ rañaan googu ni mu demee woon lépp lu ko jiitu ak lan mooy isra moo jóge gëm jóge woon màkkatal mukarrama dem baytul maqdis ak jóge gëm jóge baytul maqdis ñëw ci juróom-ñaareel bi asamaan ak la ca xew lépp andi nañ ci lenn ci mbindum sëriñ bi ci nettali googu nga xam ne nettili na ko ak lenn ci wax yi nga xam ne boroom xam-xam yi wax nañ ko ci tey nag ginnaaw xew-xew boobu lan moo xewaat ci jaar-jaar yi yonent bi sallallahu taala alayhi wa sallam loolu lañ bëgg a waxtaan wi loolu lañ bëgg a sofale waxtaan wi mu woy euh, liñ ci dolliwaat rek mooy rañaan googu mi ngi fekkoon yonent bi mu nekkoon ci ay jafe-jafe yu metti jafe-jafe yooyu bokk na ci euh, soxnaam su tedd si soxna Xadiijatu bintu Xuwaylid radiyallahu taala anha ci la faatu woon wàccub liggéey waaye bàyyam bu ndaw boobu ñuy wax Abu Taalib ci at la faatu ca jamono jooju la génnam bu siiw boobu moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam génnoon dem ca dëkk boobu ñuy wax Taif nga xam ne mi ngi ci wetu Màkkatal Mukarrama ba fa demee xew yu metti yooyu fa xewoon muy génn nga ko waa Taif génne saboote ko yuuxoo ko génne ko gàntal ko jafe yooyu yëpp dajaloo ci moom ba at moomu sax dañ ko mujj di ko tudde atum njàqare ma di at mu méttee métti ci moom alxabibul Mustafa sallallahu taala alayhi wa sallam ci la ko yàlla xéewale nag al isra wal mi'raj loolu ci bindu bee ñu génn di bind fukkeel bi ak ñeent waxtaan nañ ci lu baree baree baree bare ginnaaw rañaan googu li nga xam ne mooy li gën a fesaat ci ay jaar-jaaram yu tedd yooyu mooy moom dafa continuer continuer rek ci woote boobu nga xam ne moom la ko yàlla sant ne ko mu yaatal woote bi te muñ bu baax a baax a baax a baax la nga xamee ne la ko jiitu woon ci ay yonente mu ñëwoon nañ ko ba nga xamee ne ñoo ngay wax lii nga xam ne moom lay wax te loolu mooy bàyyi leen jaamu xërëm bi ca wéetal yàlla suñ borom yàlla moom rek moo yeeyoog jaamu te ngeen gëm ne man mii ab yonente laa yàlla moom yónni ci yéen mboolem yonente yi ko jiitoon yëpp lii lañ doon wax am na ci ñoom ñoo xam ne jëlee nañ ci ay jafe-jafe yu méttee métti ci loolu moo tax yàlla daa ko wax naan ko muñal rek comme na nga xamee ni moom la ña la jiitu woon doon muñe waxoon nañ métit yi nga xam ne doon na ko jànkonteel moom ak métit yi nga xam ne lenn ci ay saxaabaam ridwanullahi taala alayhim ñu nga doon jànkonteeg moom métit yoo xam ne daanaka sax euh, net ligiwaat day tooyalu xol lool te dara waralu ko rek lu gëm guñ gëm yonent bi sallallahu taala alayhi wa sallam ci loolu ci la doon jëlaat nag beneen beneen beneen beneen façon ci wàllu woote gi te loolu mooy di dem ci mawaasim yi maanaam xew yi fi nga xam ne nit ñi dañ fay dajaloo bu baax a baax moo di dem nag ànd ak fitam nag ak kóolu gum kóolu suñ wóolu gum wóolu suñ borom kóoluti goo xam ne am na ci am na ci moom di wax message bi nga xam ne moom la ko yàlla jàllale wax ci fi ëppoon na ci mawaasim yooyu mooy ci luuma yi xam nga ne màkk dafa nekkoon dëkk boo xam ne bu dee wàllu wàllu marché ba gën a mag euh, ci mintaqa boobu daanaka foofu la nekkoon waaye barab la woon boo xam ne ab ajukaay la donte sax nañ ko doon defee euh, dëppwut ak ni nga xamee ne noonu la ko lislaam santaane ci la doon wër di wax ci lu jëm ci wàllu woote googu noonu am na ci mbooloo yu léeg-léeg ñoo xam ne danañ ko gàntal waaye gàntal bu rafet euh, lañ koy gàntale maanaam gàntal goo xam ne duñ ci boole benn kàddu gu ñaaw dañ koy wan rek ne ko dal euh, gàntal ko daal ci anam buñ ko defee am na ci mbooloo yi nag yoo xam ne gàntal bu ànd ak maanaam ak ñaawal saboté ko lañ ciy boole lu ci mel ne giir googu ñuy wax Banu Hanifa nga xam ne ci la Musaylimatul Kaddaab bokk te dara ñëw ci moom ca kanam giir googu bi yonent bi ñëwee ci ñoom ba waxtaan ak ñoom leeral leen lii lislaam ñoom dañ koo xamal ne ko waaye ñun baara buñ la gëmee giir gi ñu bokk dag ñu bàyyil cër maanaam lépp lu jëm ci wàllu giite ñun ñooy jiite boo fi jugee ñoo lay doon ci wàllu nubuwa gi xam nga ne loolu waxinu saboote la waxinu ñaawal la waaye li leen yonent bi tontu sallallahu taala alayhi wa sallam mooy mbir yi kat yàlla suñ borom ci boppam moo koy teg ci loxo ko loxo bu ko ko soob nekkul ni man maay séddale nekkul ni nguurit lay woote ñooñu daal di koy gantal ci loolu nag euh, teewut am na dëkk bu doon wax Yasrib boobu tuddagutoon a war yasrib daana ñëw màkk yasrib googu nag ñaari giir yii ñoo fa gënoon a siiw muy al aws ak giir gi ñuy wax al xasraj mu nekk ñaari giir yoo xam ne ca cosaan aws ak xasraj ñaari turla yoo xam ne nii ñoo bokk ndey ak baay ñii dañoo cosaanoo ci aws ñii cosaanoo ci xasraj aws xaarisata bintu saala ba mooy baayam même xasraj it xaarisa euh, ibnu saala ba mooy baayam ñoom ñaar ñëpp ñoo bokk benn waajuru jigéen di xatila bintul arqam ak juyoo nag moo am ci seen biir goo xam ne boo demee ci tabaqaatul euh, kubra libnu saad mi ngi koy nettali lu bëree bari ba juyoo googu amee nag ci lañ xar ñaar xar ñaar goo xam ne nii euh, da mujj jur ak noonoo goo xam ne duñ laale ci ñoom ñaar ñu dëkk ay yahud yoo xam ne ña nga ca madinatul munawwara yahud yoo xam ne ñoom it ñetti famille yu mag a mag a mag ñoo nekk foofu ca madinatul munawwara famille bu ñuy wax banu xaynuqaax ak famille bu ñuy wax banu ak famille bu ñuy wax banu nadir awsu dem lëkkaloog famille boobu ñuy wax banu xurayza maanaam ñu lëkkaloo ànd nekk benn di jàppalante banu Xuraysh ay yahud lañ awsu nekk ay arab xasraj dem lëkkaloo ak yeneen ñaari giir yi ci desaan muy banu nadir ak banu xaynuqaa euh, histoire famille yasri bi noonu la demee woon maanaam ñetti ngir yooyu moo xam nga xam ne ñooy arab yi ñoom ñoo fa nekkoon mi banu nadir banu xaynuqaa ak banu Xuraysh Euh, ak ñaari famille yu mag a mag a mag yoo xam ne ñoo bokk lépp maanaam ñoo bokk fu ñu ko waaye duñ laale dañoo am adaawa gu mag a mag adaawa taarixiya noonu goo xam ne histoire bu yàgg yàgg yàgg la muy aws ak xasraj aws dem ca Banu Qurayza ñu lëkkaloog ñoom yeneen ñaari giir yi ci desaat lëkkaloog waa xasraj loolu buñ ko comprendre day tax buñ ñëwee ci gàddaay gi Euh, dañuy daal di xam tur yi nga xam ne ñoo cay wadd ak giir yi xam ne ñoo cay wadd di ay giir yoo xam ne nii euh, yonent bi sallallahu alayhi wa am na ci ñu bari ñoo xam ne dañoo àndoon moom bi nga xamee ne yonent bi mi ngi continuer ci wooteem boobu noonu ci la woo lu mat bañ demee ba ci atum fukkeel baak benn aj googu amoon ci atum fukkeel baak benn ci ci yonent gi ci la juróomi nit yoo xam ne nii dañoo ñëwoon màkk dégg lu baax juróomi nit yoo xam ne dañoo ñëwoon màkkatal mukarrama doon doon aj si bàyyi ko yasrib bi mu ñëwee yonent bi présenté leen lislaam wax leen boppam juróom yooyu asxad ibnu zuraara moo leen jiite woon bokk ci waa xasraj asxad ibnu zuraara danaa ñëwaat ci moom saxaaba bu tedd la ku baax wax nañ ne mooy ki njëkk a faatu ginnaaw gàddaay gi ci mbooleem saxaaba yi wax nañ ne mooy ki ki yonent bi njëkk a jullee foofu ca madinatu munawara wax nañ ne mooy ki njëkk a denc baqiya ci waa ansaar moom ashad ibnu zurara wax nañ ne it mooy ki njëkk a jaayanteeg bi sallallahu alayhi wa dugg ci lislaam moom ashad ibnu zurara mi kon bari na ay jagle yoo xam ne ñu jagle jagoon na ashad ibnu zurara xawf ibnul xaaris Raafix ibnu Malik ak Qutba ibnu Amir ak Uqbata ibnu Amir ak Seydina Jaabir ibnu Abdullahi radiyallahu taala anhum ñoom ñëpp juróom-benn yii nii ñooy ñi njëkk a nangul yonent bi sallallahu alayhi wa sallam leen présenté l'islam rek ci atum fukkeel baak benn aj googu rek dañoo daal di nangu ñu jaayanteeg moom. ñoom it ñu digg bi ne ko buñ demee ci at mii di ñëw danañ góorgóorlu ba ñu bari ci ñun danañ dugg ci l'islam ñoom juróom-benn yooyu ma tudd ca Asxad ibnu Zuraara jiite leen ca ma wax ay jagoom bañ àggee ñu présenté l'islam waa Yasrib waaye ci seenu njàmbaar ca atum fukk ak benn lañ tuub fukk ak ñaar ci yonent gi ba mu jotee ba ñuy ñëw am na juróom yeneen yeneen juróom-ñaar yu duggaat ci lislaam yu bokkut ak juróom-benn yi ma waxoon juróom juróom juróom juróom ñoom ñëpp ñëwaat nañ makkatal mukarama ànd ak juróom-ñaari ba mu des jaabir ibnu abdullahi jottoon a teew bu jaabir teewoon fukk ak ñett la ñuy teew la doon waaye ñàkk a teewug jaabir moo tax ñu nekk fukk ak ñaar maanaam ba ñuy njëkk dugg ci atum fukk ak benn juróom-benn lañ woon ñu digg yonent bi ne buñu àggee danañ présenté danañ yaatal lii nga ñu wax danañ ko yaatal ci suñu suñu nit nett li yonent bi sallallahu alayhi wasallam diggante aws ak wax ko problème banam demeeg lépp la ci aju ak famille bi ni muy doxee ci Yasrib ci Madinatu Munawwara leeral lépp yonent bi sallallahu taala alayhi wa sallam bañ nekkee fukk ñaar fukk ñaar yooyu juróom yi ci xasraj lañ bokk ñaar ñi bokk ci awsu maanaam kon juróom benn yoo xam ne dañoo bokkoon ci xasraj ak yeneen juróom ñaar yu beesaat juróom ñaar yu bees yooyu juróom yi ci xasraj lañ bokk famille xasraj ñaar ñi ci desaat ci awsu lañ bokk ñoom it biñ ñëwee ci atum fukk ñaar ci yonent gi ñu wax ak yonent bi sallallahu taala alayhi wa sallam yonent bi leeral leen lislaam ñu jaayanteeg moom wax fa wax ju rafet yonent bi boole leen ak saxaaba bu tedd bu baax bu ñuy wax Mus'ab ibn Umayr moom la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yabal mu dem Yasrib pour leeral leen lislaam Mus'ab moom it ci saxaaba yu tedd yu baax yi nga xam ne teel nañoo dugg ci lislaam lool jamonoy daarul arqam yaakaar naa waxtaan wo jàll na ci la duggoon ci lislaam daanañ ko métital bu baax a baax a baax a baax mu nekkoon ku déggoon diine ji yonent bi moom la njëkk a yebal moom la ñu wax naan mooy safir bi njëkk maanaam ki njëkk a yebal mu génn di tasaare lislaam mooy Mus'ab ibn Umayr yonent bi sallallahu alayhi wasallam yebal ko Yasrib pour mu dem fa jàngal leen seen diine jàngal leen alquran jàngal leen ahkaam yi nga xam ne yëpp wadd na moom Musab ibnu Umayr moom nga xam ne ma nga faatu ca xare Uhud xam naa bu ñu agsee ci Uhud danaa gën a yaatalaat ci Musab ibnu Umayr incha allahu taala keroog Musab ibnu Umayr bi mu demee Yasrib mi ngi dal kër Asxad ibnu Zuraara mi ma doon waxtaane léegi fala daloon moom moo ko dalaloon ñuy génn ndànk-ndànk di présenté eh, ñaari xabila yooyu di Aws ak Xasraj l'islam eh, ba yàlla def nag ci atum fukkeel baak ñett atum fukkeel ba benn juróom la ñu woon ñaar fukk ñaar la atum fukkeel ba ñett juróom-ñaar fukki juróom-ñaar fukki nit la ñu woon yoo xam ne diggante Aws ak Xasraj biñ ñëwaatee biñ ñëwaatee Makkatal Mukarrama ñu toll ci juróom-ñaar fukki nit yoo xam ne nii jaayante ga nag daa gën a yaatu moom bañ matee juróom-ñaar fukk moom biñ ñewee di jaayante Yonent bi sallallahu alayhi dafa am ay bunuut yoo xam ne yu am solo yoo xam ne leeral nañ ko ñoom juróom-ñaar yooyu ci kanam Yonent bi sallallahu alayhi wasallam bu nut yooyu bokk na ci mooy jaayante nañoo ak yow ci lépp luñ dégg lu bàyyi ko ci yow ñu topp loola mooy sart bi njëkk sartum ñaareel bi mooy pare nañ pour lépp loo laaj mu jëm ci yoonu yàlla danañ ko joxe jaayante ñetteel bi mooy pare nañ ci digle lu baax ak di tere lu bon bu ñetteel bi mooy dëgg goo xam ne dëggu yàlla la duñ ci am xàjj ak seen te duñ ci ragal kenn ku dul ku dul yàlla bu juróomeel bi nag mooy bu am solo bi mooy pare nañ pour boo ñëwee Yasrib di Madinatul Munawwara danañ la dalal danañ danañ la yaatal te danañ danañ la aar yaak saw nit juróom-ñaar fukki yi nii loolu lañ jaayante ak yonent bi sallallahu ñu daal di dem loolu mooy fukkeel ba ak ñaar atum fukkeel ba ak ci yonent gi daanaka ci at moomu sax ci lañ commencé def nag waajtaayu gàddaay gi waaye li ci amoon solo mooy yonent bi sallallahu alayhi wax giir googu ne leen waxtaan wii nii ak lii ñuy doxale suñu diggante ci e, njàmbaaru yonent bi sallallahu alayhi wasallam jëf ju rëy ji yépp def na ko ca waa màkk yëguñu ko maanaam yëguñu ko yëg goo xam yëgug sikki sàkk lañ ko yëgoon yëgug ndax wér wala wérut voilà wax nañ ne sax bi xamee ne xibaar bi ndax yonent bi saa yu daa génn Abbas la doon abbas ibnu abdul mutalib nga xam ne bàyyi la ci moom saa yu daa génn menn moom la andal pour dem giseeg waa ansaar ci lañ rendez yi ñu doon joxante di ko gisante yii yëpp xaaju guddi la doon tey ci barab yoo xam ne kenn du fa nekk la daa doon ci la yonent bi lijjantee li muy lijjanti wax li muy wax nos li muy nos ci diggante jullit yi nekk Màkka ak jullit yi nga xam ne ñoo nekk Yasrib ba am fa juróom ñaar fukki nit yoo xam ne nii ci waa ansaar lañ bokk ci diggante ñaari famille yooyu lañ bokk di aws a xasraj bokkoon a ci liñ doon wax yonente bi sallallahu alayhi wasallam naan ko ñun de ñi ngi lay ñaan dañoo doon ñaari giir yoo xam ne dañoo dëkk foofa ca yasrib ca ñoo bokk lépp ca duñ laale ñu ngi lay yelwaan rek soo agsee na munawara nga fexe ba jubóole ñaari giir yi loolu bokk na ci liggéey bu rëy bi nga xam ne ñaari giir yoo xam ne ni ku ne jaar na fi ci taarix ngir jubóole leen mënu ko yonente bi sallallahu moo jubóole ñi ba xàmmeetoo kuy aws ak kuy xasraj ansaar rek la ñuy wax loolu ci liggéey bi nga xam ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam liggéey na ko ci Yasrib ci accès guñ ci nag buñ ci accès danañ ci gën a lu bëree bëri euh, ci waxtu yooyu nga xam ne moom lañ doon génn nga xam ne du nekk waxtu yoo xam ne yuñ baaxoo génn lay doon wax nañ ne waa Makka biñ commencé yëg loolu ci weewu weewu béy naan ndax wér naag wérut waa xasraj ak waa awsa dafay am ñu ñëw ba jaayanteeg Euh, yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nangam nangam bañ yónnee ci ab délégation boo xam ne dañ ko yónnee Yasrib booba Abdullah ibn Ubayy moo fa nekk di kilifa moom it yëgu ca dara tey ci giir gi la bokk moom dana ah loolu de moom jàpp ma ne lu am la ndax yëguma ko fekk ñoom am na ci ñoom ay xale yu góor yoo xam ne ku ci mel ne sa ah, euh, Saad ibnu ibnu mi mu tudd léegi ñoom jaayante nañoo Asad ibnu Zuraara mi tudd léegi jaayante nañu ak bi sallallahu alayhi wa jaayante gu wér a wér a wér di tatbiix ak a def seenu lislaam foofu ca madinatu munawara te kenn yëggu ko loolu liggéey bu rëy boo xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam def na ko waaye waxtaan wi ma wax yëpp nag nga xam ne mi ngi tàmbalee ci atum fukkeel ak fukk ak benneel ba jaar fukk ak ñaar ba ci fukk ak ñett loolu la tuddee ci siira al aqabatul ula ak al aqabatu zaniya loolu ñu koy tuddee ci siira al aqabatul ula mooy bañ ñëwee nekk fukk ak ñaar alxaqabatu saaniya mooy bañ ñëwee nekk fukk ak eh, juróom-ñaar fukk baatum xaqaba bi li ko waral mooy place bañ doon defante loolu moo tudd xaqaba place bañ doon defee jaayante gi moo tudd xaqaba kon lii moom it ab xew-xew la boo xam ne nii eh, moo jiitu gàddaay gi tey it ginnaaw rañaan gi la xewoon ginnaaw rañaanu yonente bi sallallahu taala alayhi wa sallam kon day mel ne ba tey ñi ngi jub si nag xew-xew bu rëy bu màgg boobu nga xam ne ak rëyaayam akuk màggam akuk barkeelam moo tax Seydina Omar ibnul Xataab jël ko ñu di ko date muy nekk atum jullit yi te mooy atu atum euh, gàddaay gi incha allahu taala xam naa ci jataay bii ñu jëm incha allahu taala danañ ci dugg wax ci lu ci jëm incha allahu taala kon noo ngi sant mbokk yi nga xam ne ñoo ñuy topp ci MK TV yëpp di gërëm ñëpp di ñaan suñu borom mu defal ñu tawfiq di sant mbokk yi nga xam ne it ñoo doon taxaw jataay yi ni ko sëriñ Abdul Qadir Buso Afiya Buso di leen ñaanal tawfiq wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu والإمام إمام المرسلين معا والأنبياء